jërë ngeen jëf mbokki internet yi Allô Sénégal gannaaw bañ leen nuyoo rafetlu ni ngeen di toppee suñu chaîne bi ngir informé wu lépp lu xew ci réew mi ak ci bitim réew. tey nag seen chronique du jour dañuy daal di def ab taxaw seetlu loolu nag jëmale ko ci yenn yoo xamante ni doon na ay scandale yu ñuy nemmeeku muy xew ci suñu réew mi ku ne xam na ne chaîne chaîne Allô Sénégal saa yu yenn ci ay scandale amee. daañu def ab taxaw seetlu waxtaan ak askan wi ci li nga xamante ni moom moo xew ci réew mi waaye tamit nees mën a def ngir daal di am solution ci mbir yi tey nag ñuy waxtaan ci coowal kii di Serigne Modou Lo ak sax soxna soosu nga xamante ni jotoon na am problème ak moom loolu daal di nag mbokk yi lu doy waar récemment gis nañ ki nga xamante ne defoon nañ ab taxaw seetlu ci moom mu di Serigne Assane Mbacké ak coow loolu nga xamante ni jiboon na ñu defoon ci waxtaan wu yaatu. ci loolu nag seen chaîne Allô Sénégal tey ñëwaat ci di waxtaan ak yéen ci problème bi ma leen junj sànq ci njalbeen bi muy coowal kii di Serigne Modou Lo Ngabou gis ngeen li nga xamante ni moom moo ci jot a xew nekk ay vidéo wala sax appel vidéo lañ ko mën a duppee waaye tamit bi mbir mi klaate ñu daal di gis sax vidéo yi nga xamante ni amal nañ ko. jëmmal ko ci kii di sëñ Assane Mbacke ci kanam tuuti daañu ñëw ci vidéo yooyu daal di leen koy dégtal waaye ak lu ci mënti ki am nekk na loo xamante ni jamono ji daal nay lëmbe senegal loolu mu nekk aussi luy bëgg a doon habitude ndax kat nemmeeku nañ ne ñenn ñi nga xamante ne ñoom ñoo waroon a gindi ndaw ñi ñenn ñi nga xamante ne ñoom ñooy woote lii di diine ñenn ñi nga xamante ne ñoom ñooy woote lii di lislaam ñoom ñoom ñoo daal di jàdd yoon di amal ay mbir yu doy waar nekk loo xamante ni rafetluwuñ ko dara moo tax tey nag ñu daal di def taxaw seetlu ngir daal di waxtaan ak yenn ci li ni mel ndax kat sensibiliser dafa daal di baax ci mbir mi ñu mën a sensibiliser ñi nga xamante ne